alaikum euh, au Sénégal À alaikum à Tuna. Euh, Mbali mi ngi nii Kaffrine euh, tey nag moom suba parce que le Sénégal xam naa ñëpp yeewaguñu sax waye bu ñu yeewoo dinañ dund lu matti. on peut même dire des deuils national on est à quarante personnes décédées yo xamante pour l'instant ci benn accident boo xamante ni am na ci yoonu sorti kafrin donc vraiment euh, lépp li waroon xew annulé nañ ko mais ñu ngi naxarlu di masawu képp ku ci am mbokk ñi faatu yàlla jéggal leen te xare na ñi nga xamante ne ñu ngi des yàlla wéral leen ñi boot seen kër yi donc euh, tey moom euh, bés bu nara tar la ci réew mi